suñu mbokku journaliste yi ak euh, militant mouvance présidentielle yi fekk fii nii di ñaan rek ñi ci am waxtaan yu ñu bëgg a def en privé ñu génn ci biti ñu may ñu tuuti du yàgg comme ça ñu mën a waxtaan ak dal ak calme yi nekk fële s'il vous plaît s'il vous plaît c'est bon c'est bon pare ngeen salaamaaleykum wa rahmatullah mbokku Sénégal mbokku Ndakaaru particulièrement ak sénégalais yi nekk ci diaspora bi yépp tey ñu ñoo sàpp woon ñëw toog wax ak yéen mu doon man pantey mu mënoon doon keneen kuy responsable ci mouvance présidentielle bi wala kuy liggéey ci mouvance présidentielle bi te ñu bari nekk ci kaw di liggéey mu doon waxtaan boo xam ne lañ ko sàkku ci jamono joo xam ni ñu ngi massawu Sénégal gi yëpp waaye tamit di massawu sénégalais yëpp ci ñaari fan yi nga xam ni am na ay barab am na ci ay commune wala ay quartier ci senegaal yoo xam ni fitna judd na fa fitna doon loo xam ni amul képp kenn ku bëgg yor am réew boo xam ni di nga bëgg fitna am fa ndax kuy jiite ku nekk sa sabab sa mbébét ak sa taxawaay mooy fexe am dëkk bu dal dëkk bu am jàmm dëkk bu am yoon dëkk bu nit ñi mën a dem doxi seeni soxla dëkk bu nit ñi mën a toog ak seen xel bu dal toppatoo seen njaboot waaye umpul kenn ci ñaari fan yi ñu weesu li am ci dëkk bi du dëgg du yoon am na ci ay barab yoo xam ni nit ñi génnatuñu am na ci ñoo xam ni mënatuñoo ubbi seen commerce am na ci ñoo xam ni mënatuñoo jàngi école waaye am na ñoo xam ni mënatuñu sax dem faju loolu nag li ko sabab lañ bëgg a waxtaane tey jii nii li ko sabab lañ bëgg a leeral ci askanu senegaal waaye nag di njëkke ginnaaw masawu bi di jaale ñi nga xam ni dañoo am woyjur bu ci génn àdduna dañoo am rakk mag walla xarit bu ci génn àdduna cam am ci ñoo xam ni ci seen liggéey lañu ñàkke seen bakkan muy ay policier ay fonctionnaires ak ñoo xam ni ci biir manifestation yi lañ ñàkk seen bakkan dama bëgg ñu leeral ni que lii am nii yépp du benn sabab am na ñu naan dañoo condamné diw moo tax du loolu rekk de du loolu rekk loolu kay dafa ubbi bunt boo xam ni ñu bari ñu amoon yéene ci réew mi ñu bari ñu amoon sabab ci réew mi ci porox ndoll boobu la ñu jaar ba tey ñuy yee fitna ci yenn gox yi firnde bi mooy ay manifestation commencé na am ba muy commencé ñenn ñi doon wax naan ay résistance ak ay àq ak yelleef ak ay ay ay dañuy xeex xeex politique ak yooyu yëpp tey gis ngeen ne ñi doon wax yooyu yëpp daw nañ làqu ci amul benn responsable politique bu bokkoon ci ñiy wax naan nañ leen yëngal réew mi nañ leen taal réew mi bu toog këram amu ci kenn ku ngeen mën ñemee gis yéen ñoom ñëpp daw nañ ndaxte nag dañoo jéem a yee fitna ba leneen dugg ci leneen dugg ci leneen dugg ci may woo askanu Sénégal di leen wax lii di am nii xaw ndax télé bi pare na wala parewul manifestation yii di am ñu ñëpp gis nañ ay bakkan yu ci rot am ñenn ñu ko jël di ko jiiñ force de défense et de sécurité yi waaye ñu ñëpp xam nañ ni que du yéen yéen ko filmer du ñun ñoo ko filmer waaye ay sénégalais yuy observé ci manifestation yi ñoo filmer ay nit yu yor ngànnaay nekk ci biir euh, manifestation yi di tiire état bi nag mi ngi def liggéeyam dina def li ko ci war waaye ñi sabab loolu jóguñu ci lu dul am yéene ak mbébét di wax ni que ay manifestation mi ngi am Sénégal ay bakkan mi ngi ciy rot ca force de défense et de sécurité yi ñoo leen di faat tey ñun ñi ñëpp mu leer ñu wóor ñu ni que ay nit la ñu dugal ci biir manifestation yi pour ñuy tiire ay bal ay nit la dugal ci biir manifestation yi pour ñuy jam ay nit ay nit la dugal ci biir manifestation yi pour ñu faat ay bakkan pour ñu tuur deret pour que ñu ni Sénégal musiba ak fitna jóg na fa lu mel noonu nag bu amee ci réew dafa am ñaari njàngat njàngat bu njëkk bi mooy ki yor réew mi ak ñam ko yorandool ñu am taxawaay ak ndëgërlaay ak pas-pas pour taxaw sàmm république di Sénégal pour taxaw sàmm nation du Sénégal waaye tamit mu am beneen pàcc boo xam ni képp kuy sénégalais wala képp kuy dund ci réew mi ak képp koo xam ni bëgg nga ëllëgu Sénégal am ci dal am ci xel mu dal am ci njub am ci dëgg am nga ci responsabilité muy kilifa diine muy kilifa aada muy leader politique muy leader d'opinion muy influenceur ak koo mënti doon koo xam ni boo waxee ñu déglu la am nga ci responsabilité ñaar nag moo ci am mooy fexe fitna bañ a jóg wala ngay fexe safaan ba mooy di génn a xamb ak daka yokk pour que fitna am fi umpul kenn umpul kenn ci àdduna bi ni que bañ fi gisee gaz ak pétrole ba léegi dañoo changé catégorie umpul kenn ni am na ay këru liggéeyukaay yu am doole ci àdduna bi loo xam ni man mii duma leen ko wax yoo xam ni amoon na lu ñu bëgg ci pétrole ak gaasu réew mi amuñu ko ñooñu dañoo taxaw di xaar umpul kenn ni am na quarante de rébellion ay nit di fexe xaaj réew mi pour ni que dañuy laaj indépendance ñeent fukki at ay jéego yu bari am ci ak président Abdou Diouf ay jéego yu bari am ci ak président Abdoulaye Wade ay jéego yu bari am ci ak président Macky Sall ba tey yàlla suturaal ñu mu am ci ñenn ñoo xam ni signé nañ pour wéer ngànnaay yi ñu signé nag pour wéer seeni ngànnaay am na ñeneen ñu d'accordul pour siñe seeni i ngànnaay pour wéer seeni i ngànnaay ñooñu tey la ay nit ubbil porofnondo pour ñu ñëw yee fitna ci réew mi yëpp particulièrement fii ci dakaar loolu moo waral bu image yi paree ngeen xool jarul ma leen koy wan yéen ñëpp am ngeen ko gis ngeen ci biir ay manifestation manifestant génn pistolet tiré gis ngeen ci ay manifestation ci autoroute bi ku ko xam ni sénégalais moo ko filmé yoru arme d'assaut di daw ci autoroute bi dégg ngeen ci manifestation yi ay site internet bind démb ni ko jam ñaajo alkaati lañ dóor balu fital mu génn àdduna kon ndoxalin bi ak yorunu situation bi mënatul bokk ak situation boo xam ni dañuy jàpp ni ko ay manifestation politique rek la ku jàpp nag ni que njiitu Pastef bi ñu condamné moo tax lii lépp am fi nax nga sa bopp deful lu dul ubbil porox ndollu ñi bëggoon a yàq réew mi ñu jaar fa mu am ci responsabilité bu mag nag parce que jàpp naa ni mënoo nekk ci réew yow ak ñi nga àndal ni da nga yee fitna mënoo nekk ci réew yow ak ñi nga àndal ni yoon du dal sa kaw mënoo nekk ci réew bu la yoon woowee nga ni demuma bu yoon àttee nga ni complot la loolu defe naa amul benn sénégalais bu ko war a nangu je lance appel à la jeunesse de ce fii réew mi toll ak bunt yi ñu ubbi mu am ñoo xam ni dañu am sabab ak yéene ci réew mi bu ute ak ñun réew mi ñu bëgg bu ute ak ñun réew mi ñuy liggéey bu ute ak ñun réew mi ñuy dund jot na képp kuy sénégalais nga jóg taxaw ay nit yu armé duggu nañ ay yeneen nit yeneen sénégalais yu dëkk ci ay quartier héberger ay nit yoo xam ni dégguñu sax olof gendarmerie ak police ñi ñu jàpp ñëpp ñi ci ëpp duñ ay sénégalais wala ñi ci ëpp dëkkuñu ci gox yi ñu nekk wala dégguñu sax làkk bi ñuy wax defe naa nag boo demee ba egg ci foofu na Sénégalais bu nekk jël responsabilité état bi dina jël responsabilité ñooñu yor ngànnaay réew mi am na jumtukaay te police ak gendarmerie ñi ngi def liggéeyam mu des ñun sénégalais yi ñi nga xam ni yéen yéen a ëpp ca dëkk ci seen kër lii di am neexu leen ngeen yi dund ak ragal ak ak tiit parce que ku nekk am na ci njaboot ca ñemewu leen a wax ñemewu leen a jëf parce que am na benn nit bu taxaw yor Facebook am ku wax mu saaga ñooñu ñooy ennemi déclaré wu Sénégal ñiy wax naan àq ak yelleefu nit ñi sàmmuñu ko fii ci ñoo ñu ñooy ennemi déclaré wu stabilité Sénégal ñooñu ñooy ennemi déclaré naataange Sénégal ñooñu ñooy ennemi déclaré Sénégal bi jëm kanam yéen ndaw réew mi na ku nekk jël responsabilité ñu commencé ko. ci quartier par quartier police dina lijjanti yoonu dem yi arme bi dina sàmm infrastructure réew mi gendarmerie dina ñëw topp ñu ko war a def mais kuñ ci dàq ci koñ ngay dugg et ku ci yeewu ci kër ngay fanaan na quartier bu nekk jël responsabilité na commune bu nekk jël responsabilité na département bu nekk jël responsabilité lii di am nii am na ci ay manifestation yoo xam ni ay casseur la ay agresseur la nit téye na téléphone am di woote naan nañ leen génn nañ leen génn génn moom ci boppam ñu agressé ko mu ñëwaat dellusi di ay agresseur ñoo nekk ci biti mais agresseurs yooyu dañoo nekk génn ci biti parce que nit ku porox ndoll boo xam ni yaakaar na ni que mën na ci saafara ay jafe-jafe yu am ak yoon jafe-jafe yooyu mu am ak yoon nag ci laa bëgg ñu taxaw ci bari na ñuy wax parce que dañoo xamul bari na ñuy wax parce que dañoo bëggul dëgg feeñ bari na ñuy wax parce que dañoo bëgg réew mi nekk ci instabilité parce que am nañu yaakaar ne que bu réew mi nekkee ci instabilité ñoom ñooy jël ñu may njëkk a tudd mooy benn parti ci société civile bi koo xam ni bu procès amee nga ni nañ ko discuter bu beneen sénégalais amee problème nga ni na yoon jaar ci kawam koo xam ni yow li nga bëgg exemple bi ngay jël mooy magistrat yi am nañ syndicat Mali magistrat yi am nañ syndicat Burkina magistrat yi am nañ syndicat euh, euh, Guinée mais ñun bëgguñu suñ dëkk mel comme dëkk yooyu kuy woote loolu mooy bëggoo réew mi ñooñu c'est des ennemis déclarés na sénégalais yépp xam ni ñoo ñu ñoo bëgg a taal réew mi te dañuy wax ci kaw di wax ci suuf ñoom ñépp seeni soxla bopp moo leen bi biñ fiy wax waxi góor jigéen ñi ñoom ñoo leen di jàppale tey ñoom ñooy taxaw naan àq ak yelleef yi buñ fiy wax waxi njub ak maandu ak diine ñoom ñoo koy xeex di indi ay droit tey ñoom ñooy wax pour réew mi tàkk parce que jàpp nañu ni que yoon doxul ci kenn koo xam ni ñoom dañoo miser woon ci moom loolu mooy bi njëkk beneen bi ci topp mooy procès njiitu Pastef bi jigéen moo jóg dem ni dañ koo sàkku ci lu dul coobareem mu porte plainte tribunal atte procureur bi moo bind charge bi juge d'instruction moo def instruction bi attekat bi atte moom nee na jàppul viol waaye toroxal jigéen ak sàkku jigéen ak yàq jigéen ci lu dul coobareem ndax da nga koo ëpp alal da nga ëpp xel da nga koo ëpp possibilité la ko toppe ay nit yu jàng réew ay nit yu jàng droit ay nit yu xam nan la réew mi di doxee ay nit yoo xam ni xam seen xam-xam màcc na ci droit tey ñooy taxaw naan noo diw day dañ ko topp pour corruption à la jeunesse parce que tout simplement jàpp nga ni que yaa ngi wax ak ñu jàngul école jàpp nga ni que yaa ngi wax ak ñoo xam ni comprendre lañ mooy corruption de la jeunesse corruption de la jeunesse bi nga xam ne article 318 ak 300 moo ko définir 324 wax daan yi ci am daf ni amul benn nit bu war a sàkku góor wala jigéen bu am ñaar fukki bu amul ñaar fukki at ak benn yàq ko ndax xaalis walla yàq ko ndax ay menaces wala yàq ko ndax danga ko ëpp xel tribunal waxul benn yoon ni que séqul ak moom tribunal waxul benn yoon ni que jëflantewul ak moom tribunal waxul benn yoon ni que amul firnde ni que jëflante am na tribunal li mu wax mooy daf ni li ñoom ñaar li ñu séq mënu koo tuddee viol waaye tribunal jàpp na ni que séq na ak moom ci noo xam ni tegewul ci worma tegewul ci yoon bu fekkee nag ni que réew mi ay kilifa diine aada politique ñoo dajaloo di xeex di xeex di xeex di xeex ba droit boobu ñu def ko ci képp ku amoon njaboot kontaan ci parce que jàpp nga ni que nit warula ëpp xaalis jaay la xaalis ba tëdd jigéen nit warulaa ëpp xel ba jumt ba ba ba egg ak jigéen foo xam ni xaalis la ko jaay mais loolu ñun indiwuñ ko fi loolu ci code pénal la nekk juge bi deful lu dul requalifier requalifier nag juge moo ci am droit procureur day chargé juge d'instruction enquête attekaay attekat bi day xool li mu méngoo ak ci code pénal waxul benn yoon ni ko deful dara waxul benn yoon ni ko tëddeewul ndaw si waxul benn yoon ni ko séqul la ndaw si li mu wax mooy séq nañ mais tuddeewu ko viol corruption la ko mën a jàppe ci loolu lañ ko daanee ku ko defandir yaa ngi défendre lu bon ku ko yaa ngi taxawu ku bon ku koy jàppale dafa ni que dafay pour mu jël réew mi la ñàkk a bokkam ci élection yi jógewul ci procès bii mi ngi jógee ci procès man ak moom mu tuumaal ma yéen ñëpp ngeen doon ci seede la mu doon wax dara amu ci ku koy jàppale te naan yàlla moo tax xamal ni que tribunal nee na def na defar na defati na lu bon loo xam ni méngoowul ak diine méngoowul ak aada méngoowul ak suñ jikko ju baax na sénégalais yi delloo ci seen xel manifestation yii di am ku yaakaar ni que ay nitam rek ñoo koy def yaa ngi nax sa bopp ay nitam daw nañ ñi doon wax ak seen tur ñëpp daw nañu laqatu nañ gisatu leen ci kenn ay wëyu ak ay yeneen nit yu ñu dugal ci réew mi ñoo fi nekk di lëmbe police dina taxaw waaye yéen ndawu senegaal yi nga xam ni bu ngeen déggee dara dem seetaan yi wala bu nit bu benn groupe ñëwee dajji Auchan ngeen dem xam leen ni que ñooñu bari na ci ñoom ñoo xam ne dañoo yor ngànnaay et jéemuñu lu dul faat ci benn nit wala ñaari nit pour ñu ne ko police wala état du Sénégal moo leen faat foofu la réew mi toll. ndaw yi Sénégal yëpp nañ jël seen responsabilité quartier bu nekk na organisé wu na ASC yi jóg taxaw lépp lu ngeen gis lu normalul loo xam ne ku fa dëkkul woon wala bu fa ku fa nekk na ko signaler police dina ko toppatoo ku ñëw di lakk seen koñ ngeen am ful lay taxaw bu ngeen taxawee dinañ fa fekk ku ni da ngay jàppale réew mi commencé foofu organiser ndaw quartier bi bu kenn nangu ay Samba Boy parce que ay agression la ay sénégalais yu am seen boutique la ñuy fa ñu dajji leen ay sénégalais yu am euh, euh, yu am seen commerce lañuy fekk ñu ñu dajji leen ay banques yu ay sénégalais denc seen xaalis dañuy ñu dajji leen ay station essence yoo xam ni ñu ñëpp fay jënd essence moom la ñuy toj leneen li ñu yàq ci réew mi ñooñu visée politique lañu amoon parce que jàpp nañ ni ko waa ji warul am bilan jàpp nañ ni que terre bi tant que ñu koy tudd moom mooy féete kaw terre bi Macky Sall jëlu ko ñu nekk ci gouvernement am jëluñu ko ay sénégalais ñoo koy jëlee ñi lakk teeru tëngéej bi lor ngeen leen. li ci gën a metti mooy dañoo toog di seetaan parce que ñenn ñi dañoo ragal parce que ñenn ñi dañuy bañ ñu saaga leen parce que ni ñi dañuy bañ ñu xas leen ñi doon xastee ka saaga daw nañ du ngeen leen gis fenn fépp fu ngeen leen gis boole leen leen parce que ñoom ñoo déclenché affaire bi ba pare ku ci nekk daw uti foo nëbbatu amu ci kenn ku nekk këram kenn buñ dee seet ku noonoo Sénégal ñooñu ñoo noonoo Sénégal buñ dee seet ñi bañ Sénégal ñooñu ñoo bañ Sénégal buñ dee seet ñi bëggul lu baax ñooñu ñoo bëggul lu baax parce que ñooñu ñoo fekk ay étudiants université ñu dem jëli yeneen nit en complicité ak lu ndaw ci ay étudiants étudiants yëpp toog di seetaan xam ni que am na tey ñu fi fanaan si boolewuñu leen wane wuñu leen ñu xëy ñooñu taal faculté de droit taal faculté de sciences taal faculté d'odontologie tey tëj nañ campus bi ñoom dem nañ seen yoon am na ñu ñun ci jàpp waaye tey benn étudiant mënatul continuer jàngam ci étudiant boo xam ne jàngoon nga ba pare say sa pratiquement sa année ci étudiant boo xam ni ay ña deux mois d'étude moo la desee woon nga def sa examen seetaan bu ñu seetaan ñun jël fukk ak fukk juróomi samba booy yeneen étudiant fat leen police xam na mi ngi def liggéeyam am na ñu ñuy jàpp et defe naa ci fan yu néew ministre de l'intérieur dina ñëw wax ñin jàpp fan lañ leen jàppe lan lañ leen jàppe ak lan lañu yor na sénégalais bu nekk jël responsabilité na kilifa kër yi jël seen i responsabilité na kilifa diine yi jël seeni i responsabilité du am yox-yoxi du am marche arrière du am dellu gannaaw l'État fera face mais les populations doivent aider ku nekk na dellu koñam jarul toog ci siège bi jarul toog feneen responsable politique yi dellu leen ngeen dimbali seen ASC yi organisation de jeunes yi organisation de famille ñu ku ku mënul génn bañ ñu taal sa koñ nga organiser wu loo gis ci lu leerul nga wax ko na commerçant yi organiser wu défendre seen boutique na transporteurs yi organiser wu défendre seen seen seen liggéeyukaay na station d'essence ñu investir seen xaalis nañ organiser wu képp ku gis lu yanul maanaa nga boole ko mais ñu bàyyi maslaa bi parce que ñun certes dëgg la suñu aada ak suñu cosaan daf ñu may ni que boo gisee doxandéem bu ñëw ci koñ bi di nga gis maire bu ko tibbal añ di nga gis maire bu ko tibbal reer mais xamoo lan la fiy def si tey ñu mel noonu ñooy dugg yor arme à bu manifestation amee ñu tiire politiciens yi leen fi dugal ca daw dem toog di bind Twitter naan CPI nombre de morts nombre de kii mais ñoom ñoo leen rey keneen reyu leen ñoom ñoo leen rey ñi yeroon ay ay ay compte influenceur ñoom ñëpp ñu terroriser leen ku ko jóg naan woyi j'appelle xaw ma freedom Sénégal dara amu fi Sénégal ay bandi ñoo ko bëgg a taal Sénégal ay nit yu armee ñoo jóge feneen tey bëgg fi dugg Sénégal tey ñu ñëpp tey la ñu war a gën a booloo baax na nag ñu fàttali ni que ñun mosuñoo xeexee yenn yi mosuñoo am problème mu waaso musuñoo am problème mu diine mosuñoo am problème mu kii fii la dëkk keefee la dëkk musuñoo am problème mu kii la kii séeréer la kiy joolaa la parce que yàlla ci suturaam moo ñu ko regleel et mi ngi koy jaarale ci ay kilifa diine yu fi nekkoon maam borom tuubaa dafa takkoon ay soxna ci kër yu bari kër yam jotut a takk mu may fa ay doomam ay doomam donn loolu def ko tey boo seetee murit tarixa yi lépp nga fay ethnie yëpp nga fay fekk boo demee ci maam Seydi Hadji noonu la def takk ci kër yeneen jël ay doomam maye feneen loolu lépp moo indi tey suñu jaxasoo ba tey ñu mën a nekk Sénégal waaye waaye waaye waay waay ku bëgg réew mi da ngay ngem bu dem élection ku bëgg a bokk élection da ngay bëgg a da war a wàccoo ak charte réew mi mais ku defee ni ci ñëw taal fitna indi say influenceur sa fukki nit nekk bitim réew dinaan nooy dëkk baa ngi tàkk li ci ëpp ay manipulation la li ci ëpp ay manipulation firnde bi mooy man maa ngi nii toog du maa ngi nii toog lan ngeen déggul ci man suba ba ngoon jot dañuy wax lu dul dëgg suba ba ngoon jot dañuy wax lu dul dëgg suba ba ngoon jot dañuy manipuler suba ba ngoon jot defuñu lu dul yéem a yee fitna na réew mi yëpp xam ni société civile boobu naan ay noo dañ koy discuter kenn du ñoo ñu di wax loolu noonu ay ennemi Sénégal lañ na ñëpp xam ni que influenceurs yii ñuy wax ci télé yi te ñi ci dëkk fii nii ku ngeen ci gis xam leen ni que ennemi Sénégal la képp kuy woote pour ñu taal réew mi jàppale ni que ennemi Sénégal la yéen ndaw réew mi laay waxal le conseil national jóg organisation de jeunes yi jóg organisation de femmes yi jóg ñu taxaw quartier par quartier ñiy bëgg a taal réew mi ay bandi lañ ñiy bëgg a taal réew mi ay agresseur lañ nguur gi nag awma sikk sàkk ci ni ko taxaw na justice bi awma sikk sàkk ci ni ko taxaw na parce que boobu ba léegi kenn du juge kenn du àtte kenn du kii nga ubbi parax ndollu taal ba pare daw di nëbbatu ñoom ñëpp dinañ leen génne benn benn benn benn benn benn ku ci yaakaar ni rëcc nga nax nga sa bopp ku ci yaakaar ni ko nekk à l'étranger toog tiim sa live taal sa live naan sa ndox ba kay sàdd wéy taal nañ kër gi taal nañ kër gi dem leen am na kër yooyu xaw xam ni kenn du ko taal de ku ko dem sa bakkan nga fay bàyyi yàlla nag moo ñu nattoo mooy nit ñi fii nitu jàmm lañ mais na ku nekk jël matukaayam quartier bu bu nekk na organisé wu bu fa responsable politique ba fa nekk mu nekk ci mouvance présidentielle bi walla mu nekk ci opposition parce que opposition bi am na ñoo xam ni réew mi moo leen ñor ñu organiser wu ku ngeen ci mënta jot man woo leen ma on va vous organiser et cette bataille incha allahu rabbi on va la gagner nañu jàpp ni que ku noonoo réew mi ñu noonoo la ku bëgg taal réew mi ñu jaamaarloo ak yow ku yëpp wëyu tax a jóg nag ay kuréel ñi ngi fi muy tribunal muy gendarmerie muy police dina def liggéeyam na ndaw yi Sénégal xam ni que am na ñu rax kuy manifester ti bee boo nga xam ci li ngay dem ca gestion wu manifestation bi mënatul nekk comme avant ñu yëg ni que am na ñu yor ngànnaay ñu fi dugg du man maa leen filmer du yéen yéen a leen filmer suñu yeneen moroomu sénégalais ñoo leen filmer donc jumtukaay yi ak matukaay yi day ute ku jàppoon ni kat fo mooy dàqante ak ak ak ak policiers yi sànni ñu sànni lacrymogène romb nañ foofu de na borom kër yi téye seen doom yu ndaw yi na borom kër yi wax ak seen doom yi taxawaay bi soppeeku na na quartier bu nekk jël responsabilité foofu la réew mi toll. bu loolu weesoo am na beneen pàcc bu ma bëggoon ñu wax pour indi firnde ci lenn njiitu Pastef man ak moom dañu dem tribunal bi ma demee tribunal ñu daan ko biñ ko daanee. ma def réquisition ci ay bien bi ñu defee réquisition bi ci laa gis ni que ndekete wax dëgg yàlla am na ñu jóg pour sànq réew mi te koom-koom gu bari lañ ci dugal njiitu Pastef nee na këram gi nekk foofu cité kër góor def na ci hypothèque gu neuf milliards cent millions nee na këram googu nekk deux cent cinquante six mètres carrés def na ci hypothèque jot na ci neuf milliards cent millions këyit baa ngi fii man du ma diffamer kenn balaa ngeen jóge fii ku am airdrop ma airdrop la kon lu may wax dama ciy am firnde parce que ruus naa di wax après suba samay. nawle samay doom ni ma yaa fi wax lii balaa ngay na jóg ku fi am airdrop nañ la ko airdrop mais na ngeen jàpp nekkul ci awoon ci ak njub xaalis bi ñu doon wax ñi ñee ko dajale yëpp du dëgg ca xel tey na ci yu bari ku gis kër ga nekk ci te kër góor gi xam nga ni jarul 9 milliards 100 millions donc ku nekk ci loolu dajale woo xaalisu sénégalais yi pour def leneen junj nag doy na borom xel bépp taxawaay bu ci war incha allahu rabbi ñun dinañ ko jël waaye bu leen kenn nax buleen leen kenn nax ba taal fi fitna tey mënoo koo fay nga daw bu kenn nax ba tey mu taal bi fitna après topp di seeti président de la république naan ko wuy nañu waxtaan kenn du waxtaan benn waxtaan a fi am mooy dialogue national bi ku bëgg a waxtaan foofu ngay dem waxtaan. bu fekkee nag ñun sénégalais yi nangu nañ nii ñuy dunde ñaari fan yi ñu continuer koy dunde mooy nekkatuñu la ñu nekkoon bu fekkee ñun sénégalais yi ñi bëgg a liggéey ñemeetuñu xëy dem liggéey ci yenn bax gox yi parce que tout simplement benn nit ci ak njubadeem ci ak defi boppam bu fekkee ni que ñun senegale sénégalais nangootuñu dem liggéey liggéeyi na mënatuñoo yóbbu suñu doom yu jàng mënatuñoo dem faju parce que tout simplement dafa am ñu nekk bitim réew di xamb ak a dugal fii mooy nañ leen xoolaat nekkatuñ lañ nekkoon ku ragal toogal sa kër waaye ku bëgg réew mi ku bëgg ndonole suñuy doom jot ci ku gëm yàlla te ku ànd ak dëgg na nga jóg taxaw ñu organise quartier yi bu ñu dàqati ba nga dugg ci biir quartier yi ne la waa quartier ba jàpp jébbal la police ku ci yor ngànnaay bu ngeen ko mënul jàpp gendarmerie am na numéro vert police am na numéro vert force spéciale yi dinañ dem dem lijjanti ko mais loolu lépp nañ ci taxaw ngir suba dund ba ñu xamoon ñu dund dellu ci ngir suba terre bi mën a dawaat ngir suba investissement yi gouvernement bi yàlla rek a yor nguur ku bëgg nguur ci ay élection ngay dem ku bëgg nguur ci ay élection ngay dem keneen ku leen wax ni ku nguur mën nañ ci jote neneen kooku ennemi wu Sénégal la te ennemi Sénégal ñun ñëpp am responsabilité xeex ak moom ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum dafa mel ni affaire bi ñëw na lii lii ci manifestation yi la kii du manifestant ni que ak gendarmerie ñooy rey nit ñi ñii ñooy rey nit ñi de ñii ñooy yor arme à feu buñ duggee ci biir nit ñi tiire bu ci nit deewee ñu ni balu fital moo ko rey wala paaka moo ko jam wala jaasi ñu jiiñ ko policiers yi ca ñoom la parce que bëgguñu lu dul bëgguñu lu dul ñu naan am na vingt morts quarante morts instabilité fii lañ bëgg a yóbbu réew ñii nag police ak gendarmerie dina leen lijjanti mais pour ñu lijjanti leen mooy yéen sénégalais yi yéen jeune su Sénégal yéen jigéenu Sénégal ku ci nekk quartier ba nga dëkk signalé maa ngi gërëm bu baax naroon naa ko fàtte waa Yoff particulièrement waa Est Foire waa Nord Foire démb dañoo toog ba ci yàgg ñu signalé ay appartement yoo xam ni ñeneen ñoo ko ñëw dugg si parce que xam na seetlu nañ ni que ñi fa nekk bu guddi jotee la génn dem régler seen i def bi ñëw bi police ñëwee dañoo gis ni ñëw jiite woon toj Auchan wu yi doon am dañuy ñëw déclenché après boo ñëw daw ñuy tiire ci biir nit ñi na waa Grand Médine def noonu waa Pikine def noonu waa Kër Massar def noonu parce que foofu moo ëpp ci liñ dugal foofu ci nit ñi parce que jàpp nañu ni ko foofu mooy banlieue bi jàpp nañ ni ko foofu nit mën na fa dugg ci seen teraanga ak seen féex ak am jàmm boo ñëwee ñu xajal la nga naan ndoog nit ñi ataaya bu guddi jotee ngeen woowante dem def liggéey bu bon bi donc na quartier yëpp taxaw na ASC yëpp taxaw na mouvement de jeunes yëpp taxaw ñu jaamaarloo ak ñoom ku police dàq ba nga dugg ci quartier nañ la boole. ku gendarmerie dàq ba ma dugg ci kër gi nañ la boole ku ñu gis mu am comportement bu normalul yor ay ngànnaay nañ la boole loolu moo ñuy sàmm donc ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam naa am na gis naa fi ñi nga xam ni ay ay ay ay ay ay presse internationale bi la mën naa leen a jël cinq à dix minutes pour ñu def version française bi asalaamaaleykum wa rahmatullah